président Girassi. mokki yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tour euh, Accent santé. président Girassi, andak euh, euh, membre conférence des leaders bu coalition Jomai président dafa am ay tomb yiñ ma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 je vous remercie remercie. Je vous remercie. imam Dramé remercie. Cheikh Thioro ñu ngi lay nuyu bu baax euh, mai 1968 Sénégal yëngu Je 1968 yëngu-yëngu Je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 ñun militaires yi nañ ci Sénégal général général Jean Alfred Diallo ginnaaw ndaje boobu mu président Léopold Sédar Senghor Binde ab président Léopold Sédar Senghor le 2 juin 1968 bataaxal Bobu, général Jean Alfred Diallo di xelal président Léopold Sédar Senghor lan la wara pour def pour qui Dikat, ci atum 1968 ci xalat yim ko don général Jean Alfred Diallo demande na ba di wax sax Léopold Sédar Senghor na nga le train de vie de l'État, Khalisbi nous bi ñi état di dundé nañ ko wàññi dougalat ko ci askanu Sénégal général Jean Alfred Diallo lu tax may fàttali lolu moy dañoo gëm né 2024 mille vingt quatre li ma mille la won ci armée Sénégal général Jean Alfred Diallo amna ay dom ay seut ak ay jarbaat yi nek bir armée bu Sénégal yo xamné coup d'état taxu len juk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 ndaxte ñun sax conférence de presse waaye ñoom mënuñu conférence de presse ñun sax mën nañ marche ñoom mënuñu marche loolu laa bëggoon rek yokk as ci appel bu ñuy lancer suñu une bi suñu jàmbaar yi suñu Nous yi suñu soldats yi ci ne bu ñu ne ci askan wi marche. Nous bokk ci askan wi et que dañoo war défendre askan wi du nit la ñu war a défendre askanu Sénégal la ñu défendre mbokk yi ñun coalition Diomaye président dañoo yëkkati suñu baat ca kaw ay fanangi ne li président Macky Sall jël comme dogal li assemblée nationale li ëpp ci député yi dogal muy loi bobu deppowul ak

li gëna dëgëral suñu taxaway moy ginnaw bi assemblée li ëpp ci député yi muy député Macky Sall voté loi bi nga xamné ñun ñëpp ko gañ député Yewwi Askan Wi dañoo def recours dañoo dem fa mbaxane doonee benn muy conseil constitutionnel ngir wax conseil constitutionnel mu àtte ñun ñun askan wi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 dem fa mbaxane donné le conseil constitutionnel juróom-ñetti fan alxames juróom-ñetti fan ci weeru bi février donc da kay ajandi ci wér manam fi ak fukki fan ci mars kon mu ngi comme dañoo ajandi loi nga passé ci assemblée nationale te la constitution da fay nous ñun suñu taxaway ci né ñun ñu ngi ci jamono campagne électorale fanweeri fan yoyu, mu koy ajandi mën na gëna gatt jëm ci juroom ñetti fan bu féké gouvernement bu Sénégal wax na ak conseil constitutionnel ne leen nañ ko traité ci urgence nu munti démé ajandi bi kon amna. gouvernement bu waxul dara conseil constitutionnel aj nañ ko fan kon ñu ngi ci campagne électorale loi bi président de la république mënu ko promulguer manam mënul wax né loi bobu mën nañ ko doxal Fait constitution fait conseil constitutionnel attewul ñun askanu Sénégal yi nga xamné député Yewwi Askan Wi ñoñu waxal feulé ci conseil constitutionnel Fait conseil constitutionnel attewul ñu ngi ci jamono campagne électorale dama bëgg askanu Sénégal yëpp xamé ko xamé né kon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

mom moy décision conseil constitutionnel loolu lu may tekki itam moy préfet DGE Sénat CNRA daño wara continuer seeni opération buñ ko defulee daño jalgati yoon ça veut dire que tay bala ñoo teud ci télé candidat yi daño wara a jaar télé wax sen programme buñ ko défé mo am buñ ko defulee dañoo jalgati yoon ndaxte la saisine du conseil constitutionnel évidemment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 nous, ne ñu la résistance continue la désobéissance civile continue et elle continue notamment ñu dañ koy coalition Diomaye président avons du doon moom rek vous si ñëw Nous nañ conseil constitutionnel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 I'm sorry Lulendal Makissal. dal Macky Sall la gis ngeen Mo ngi téléphone Waye du téré wax du téré wax yawa président Macky Lulendal dal yawa Amadou comme les gens ñaar ont sow coup d'état constitutionnel bi comme diou dafa signé yow nga signé. lu leen dal gouvernement bi donc nous exigeons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 loi bi Macky Sall ak député voté assemblée nationale te dëppoowul ak constitution dañ ko ajandi ndax recours député Yéwi Askan Wi ñun coalition jomay président dañuy wëyal suñu activité lolou motax tay ñu wo len conférence de presse pour xamal len ko muy ben tay ji ni bu conférence de presse bi ñu amal ak yéen dinañ dem ci commissariat dem seti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 amna suñu ay yu amal veille citoyenne euh, Mermoz à 22h. Vous wetu Veille nocturne citoyenne à Mermoz à 22h. heures képp ko na fa dem té lepp li nga pour nous dellu ci mi pour nous génn ci fitna bi nga ci la président Macky Sall dugal li nga xamné daf ñuy dello rétablir l'ordre constitutionnel ñun un président coalition même bu jógewul ci ñun dañ koy dolel dañ dañuy wax suñu ay militants suñu ay sympathisants ak askanu Sénégal ñu dem ko programme suba fukki fan ak ñaar ci wéru février bu midi délégation bu takku dina dem groupe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 Euh, bu h trois heures jotey suba Altiné trois heures dinañ fu spécimen président donc le spécimen président manam woyel dal suñu campagne bi ngir askan wi a li nga xamné moy bulletin de Jomai bi nga ci urne dimanche 25 février 2024. mardi 13 février Talata fukki fan ak ñett ci février ñu ngi wax képp kuy militant coalition Diomaye président di sympathisant wam di soppe wam ñun ñëpp talata fukki fan ak ñett ci wéru février ñu dem dolel suñu mbokk ar suñu élection yi nga xamné dañuy amal marche marche bo xamné bokk na ci Mandargal, tek karal tek marche silencieuse ken du wax dara waaw ndaxte am fi ngay am fi ngay solo ñu tek. tek marche bobu am mardi 13 février bu 3 heures jotee daanaka gannaaw julli tisbaar ba timis ngi rond point fille, école normale supérieure ñun coalition Diomaye président ken duñu fa jiitu organiser wuñ ko aar sunu élection moko organisé, organiser waaye dinañ ko dem société civile moo woote di woo suñu membre yëpp suñu militant yëpp suñu sympathisants sénégalais yëpp ñu bokk ci marche boobu donc muy mardi muy mercredi mardi 13 février mercredi 14 et jeudi 15 février nous, ngi am ay sénégalais de liguey ngir président Macky Sall delu ginnaaw ci journée ville morte donc euh, ñu waajal kon journée ville morte yoyu ay bëss bi nak mu ngi jéxé faut fukki fan ak ñett ci février vendredi 7 février suñu mbokk nañ fi fan yi passé ñu recevoir leen fi